asalaamaaleykum yi xarit yi saa su ne li ngeen ko bëggee eh, ni rek laa koy defee nee naa la e fii rek lay xew ah tey ma ànd ak koo xamante ni mën naa ne kenn dootu ko présenté ci làmb moo ngi ni jàkkaarloog man eh, Issa Pouye la tudd tey ma war a ñëw waxtaan ak moom ci lu bari ci làmb eh, ndax nee nañ booy dugg ci làmb da ngay xool ka ka xam wala ka ca nekk nga mën a waxtaan ak moom la ca nekk donc du ma def lu dul bàyyi ki nga xamante ni tey moo duy Issa ndax li ñu war a waxtaan tey dafa bare bare bare bare bare man maa jékki-jékki nag woo ko ne ko dama lay seet si ñu am lu ñu waxtaanee am na lu tax ma dama koy seet pour ñu am lu ñu waxtaanee ne parce que man lepp luma dégg rek damay dem jéem xol témoignage jéem xol ndax ki loolu moko wax wala waxuko dinañ ci ñew ci kanam avant tout damay dugg ak mom ci li nga xamanteni bi mom moo di làmb ñu waxtaan ak mom tout ci carrière am bala may ñew ci sujet bi isa nuy nañ la. waaw auzu bi mina shaytaani gina sante yalla jul julli yonent salam sante wa sallam di ñaan Sénégal yalla na yag di lay ñaan yéen it ngeen yalla yàlla ni wa ikri écrit gep gépp di nuyu sama rak xanjani ma do ni wa caari gep grand non jop ak waa Thiaré gépp di nuyu waa Thiaré gépp di nuyu suñu waa écrit di ñaanal sama fans yëpp di ñaanal réew mi yàlla na fi jaam yàgg. Issa euh, fi may ñëwee tey mooy ci làmb Issa Pouye ak làmb dañ la daan dégg ci làmb ñu jékki-jékki actuellement nga def benn stand by lan waral lool. waaw loolu moom si man si yàlla parce que man maa ngi sant yàlla bu baax làmb juróom defet laa ci am juróom defet fan victoire am naa ko kon su fekkee ne victoire moo tax may bëre ko war naa fa bëre fu ma toll. bëri la ñu wax ñu ngi ci làmb ñu ëpp defet foofu te ñu ngi bëre mais loolu seen wërsëg la yéen naa leen ko yàlla leen jik àdduna ni moom lekk wërsëgam damay jàpp ne li ma lekk si làmb si lekk mais làmb lekk naa si lu yàlla macha allah sant naa si yàlla bu baax parce que ma lekkee man rek man rek du ma fi nit yàlla day may ñii may ñii si may ñii wala may pare ma nga defar yi day may ñeneen ñi loolu mooy àdduna quoi naan yàlla ñu la fi nekkal waaw mu noonu quoi. mais tey ci wàllu làmb bu ñu ko waxee dañ daan seetlu ne yow euh, chaque un da daan nga bëri lu mu bon bon benn wala ñaari combat waaw loolu am na man chaque saison ñu wax ma combat xëy na yàlla moo dogal comme ba waru waruguma bëri ndax victoire laa toog victoire laa nekk nii laa toogaale mais nit ki da nga bëgg dara te yàlla saison man dama jaaxal chaque saison ma combat chaque saison mais yàlla moo dogal waruguma bëri waaw. mais ñi ngi wax bu baax. yow lan nga lan yaakaar ne kon moom moo la téye actuellement. man dama jaaxal loolu suñu borom dogalagul la rek parce que nit ki ñu bëgg dara maa war a def maa a def ñu entraîné di liggéey ñu nekk ñu si làmb ñu di liggéey waaw mais lu jot yomb quoi àdduna yàlla na dogal ko mënoo si dara. mais ce que am na ay mbër yoo xamante ne que nañ la ko ñu commencé ko dox du sotti. waa Assane Ndiaye woon na ma wax ma sama combat ma Abdou Diouf dégg naa si ma Boy Sey. yooyu yëpp mais affaire en tout la. léegi ci kan la dul sottee ci ci sa staff wala. sama côté dina sotti ñeneen mbëri kay ñoom ñoo xam ne ñooy xaw a loxol quoi ñoom. mais lan nga moo tax ñuy loxol Issa. waaw parce que ñoom xëy na ñu am lu gis xam na Issa léegi am na changement am na changement moom quoi. waaw parce que bu njëkk daa mais léegi loolu dafa jeex quoi si làmb ji parce que. mais Issa ba tey ci làmb am na loo xamante ne remarqué nañ ko Issa Pouye bu njëkk ba ku mu masante faqat la doo taxaw mais léegi gis nañ ne sa làmb yow sa combat day jël temps lan moo waral loolu. waaw loolu mais mais ñi ngi bëri nag ay nit nan dañuy dañuy yokk ni nga yokkoo <laughs> àdduna da ngay entraîné dañuy entraîné mais léeg-léeg nga gis mas dangay xool bu yomb am mas wax dañuy ñëw métti ñoom la quoi sa guur mu neex dangay am dangay combat day neex si yow. am combat day métti ci yow moo àdduna noonu ñoo demé non mais man remarqué na sa combat yo xamanteni sa combat yi njëkk ak sa korma sa combat yi mujjii ku ci melni sa combat ak babakar Diallo dang ko taf tafé gis nga ko euh ndol mi ki ñi ciow ni tafaatin gis nañ ni nga ko def voilà ah ak bala way gis nga ni nga ko def. lolu amna na. bala gay mom maa moom suñuy biir défense bi maa ko doole ma si am fuf mais dama daan déggoo la jàmbar am ko yàlla dimbalee am man doomu adam kessela nit kessela yàlla may may may ñeneen ñi xañ ma xañ keneen man man laam foog naa du ma daan man man mënoon naa daan laam dama gëm. parce que macha allah nga xam ne mën a bëre ak gën sa bopp parce muy def xam naa ko pour daan nit mais yàlla moo ñëw ak mbiram. ñaan tam booy ay ñoon Amadem ay Thérèse Ndira Rërëg ak ñoon Sèye Ndoye ak Fallou moo tax la booy tamit ak ñoon Géral ak Pambooj booy na seen kii tamit ay champion ñëpp ñu ngi seen ginnaaw ñu ne ñun xaar Ndiaye numéro 2 ñu ngi seen ginnaaw ñu daal ñu ngi si ñoom travail ànd bok asam ensemble travail waaw. léegi tey man ma doon promoteur ñëw na la Issa wax ma kan nga soxla ma tëggalu kan nga man man depan naa fi may laaj mbër si làmb man kuma ma làmb boor man si kaw ba suuf ku ma jox pare naa maanaam maa leen ko yombal man combat du taar si man ki kaw ba suuf ki ma sama d'accord Mm-hmm. mais dama dégg tamit booy yi nga xamante ni ñu ngi jóg actuellement ñoom dañuy wax ne ñi nga xam ne ñoo leen di si làmb dañ leen war a may seen chance te am na ñoo xamante ne nee nañ di ci daal est-ce que Issa pare na pour booy yi nga xamante ne ñu ngi ñëw. man moom booy ab xale man maa daan incha allah. Hmm. Issa booy yi am nañ doole mën nañ bëri. ëpp ñu ma doole ma leen ëpp doole man dàq bëri yàlla xam na loolu xale moom moom ñu ma daan moom wax dëgg yàlla hmm. non hmm, daan nga def lu ne sama daan di nga dugg fu ne di nga entraîner fu ne nga dugg fu ne nga ñaan fu ne sok ma dal waaw wa isa ban combat nga remarqué ne gàllaaj japp na la deug deug deug deug deug non xam nga <laughs> combat dama war ñak rek ñak sa waree daan da ngay dox sa waru daan dara gënu mais galaaj am na ci lamb yow gëm ko mais la lu wër la même sama combat amna combat ma galaaj mais dama taxawon musa taxaw ne kii moom tax sama combat mais man sama war ñak ñak rek lolu kassa la mais légui yow kon ban combat nga dugg ci lamb de sentiroo sa bop xam nga loolu des fois day am nga dugg si la am te doo nekk. non man sans man la loolu wax dëgg am naa kese dox loolu man daal dama daan daan muy neex su ma damay jàpp ne a tontu wax dëgg yàlla parce que xam nga am na loo xam ne baaxul nga xam ni si ñu ma kon du neex parce que soo dëgg da daan nit nga kontaan su la daal nga nga sant victoire. su saltel man dem naa ci mbër laaj ko mu ma sama combat ak diw dama dugg nekkuma mais neewu ma gàllaaj moo ma jàpp quoi te peut-être nga nekk di xalaat leneen wala ngay xalaat say supporter wala ngay xanaal ngay xalaat ne xam na ñi ma bàyyi kër ga affaire yooyu noonu ba stress jàpp la nga daan. non jour ma rek xam nga laa moom <laughs> sa bis si nekku sa bis da daan la rek. ban la. <laughs> waaw man Zos daan naa ko bis ñëw mu daan ma Balla Gaye daan naa ko mu daan ma Tawatin daan Lo daan na ma Lac daan na ma te ñaan quoi waaw. mais est ce que parewaat nga pour ak Balla Gaye sa combat. pare naa pour ñëpp. waaw. Issa léegi dañuy ñëw ci euh, écurie Thiaroye yi écurie yi actuellement gis nañ ne je sais pas xaw ma dañoo nekk ci ay problème ñi ngi xiiroo ñi ngi ŋaayoo lan la aw cause su lan la ci écurie yi nag laa wax. waaw man na écurie Thiaroye xiiroo ŋaayoo yoo xam ne gisuma ko man nag ñëpp laa ma jàmm. dëgg yàlla amu si kenn problème. mais léegi est-ce que entraînement bu njëkk bi ngeen daan am yéen a ngi koy am ba tey ak booloo bi ngeen am. waaw booy ñi entraîné ñu si amee temps dem si dem parce que ay borom kër nañ xëy na ñu suñu liggéey làmb rek la ñun ñu ngi si kii xam nga ne plongeur la man maa ngi si chantier yi maa ngi si business bi maa ngi si géej gi macha allah ñun dinañ si lépp kese làmb rek. xam nga aduna do bëggam jamm gam jamm do bëgg jamm do jamm xam nga ñaka jamm fa la ñëkke xota xol tang ñu sant yalla ñu lo dal ñu abdulit mu tol xolam daaru sedd tuddu yalla lo mom solo ci aduna man da sama xala yëkëti billahi wallahi kep ki tax ko suuf yi yene mo dal lu bon nu way yeen nak da xam yi ñepp yeen nañu jamm duguguma ci ci bi batay de parce que ma ngi ci écurie ciaré batay ñep jamm la ni yene te gëm na ni ñi nak tamit jamm lu ma yeen waaw mais léegi ci biir caaro yi ba tey waxuma écurie caaro yi ci biir caaro yi dafa mel ni am na yenn écurie yoo xamante ne mi ngi ci biir. waaw loolu am na. est-ce que juboo ngeen. bien sûr. rëdd rek si amee combat damay waxuma sama kër fii. amee combat wala ma nit ñëw. amee combat damay ka am na ci nekk ñun ñëpp booy yi ko sama combat da nga ñëw fi waxuma ka sama waaw. voilà ba tey euh, ki nga xamante ne bi moom moo di isaapu yi tey moom lañ fi am ci biir euh, émission Carrefour de Stars tey nag du ma def lu dul dugg ci sujet que am na ne mi ngi lam-laamee ci biir internet lu dul jàkkaarloog Issa Issa sa diggante ak Khadim Ndiaye lan moo ci nekk. waaw xam nga <coughs> kooku moom man nee naa la man ni ma yàlla bindee xaw ma wax ci ñaaw xaw ma def lu bon bañ ñàkk man ndox sama bu xam. man am um ben sëriñ boo xam mos naa naan naa liggéey ma ko muy bëré mos naa gaa wax lool xam naa yow dafa ma mos laay ma daan xaalim sama grand la jàmm la xiyene dañ do and ndam mortu na ànd ma takka côté parce que nit sey and ak moom nga dem ba ànd ak mu la am nga dara takka côté mom nak wax na lu ne ni ma ko jax tak bàyyi ñoon ni ni ñëw jël ay protein meeka protein wax ma kamé c'est vrai ma ko may maa ko may protéine. ah yow yaa ko may protéine. maa ko may protéine. Mm-hmm. mais condition nu ma ko mayee waxu ko ba léegi mom nan la mom nan nga xom protéine nan la la ñane protéine. voilà protéine c'est créatine la yoy dindi graisse. waaw ak mom yaram dafa reuy birim birim num mel ak yaram num mel. dafa graisse. mo ñew diga sal ma may probation ko ma romb la. mo mm-hmm. ñew diga sal ñu ja kërëm entre mo ma yow la nga utiliser da nga dag ni ma ne ko man créatine dajje lo loo day dindi graisse man ko ma xam dama ki nan li nga nalaate xool ku ma xool sama combat bi wax yëpp créatine la jël man ne mom la jël mom dama ci may man ne ko nga naa ma ne ko am naa pot ben pot kër ga yalla xam na ni sama baami la taxaw di wax xaa njaay yenu doomam dina abdou njaay la yoni ñu ñëw sama kër mo sama papa neena dama ñu tok rek jige saaru ñu tok mo sama papa nga jox pot nga waxoon ma yëkki jox mu jël mais nee dama ñew këram jox ko man xam nga nit ku ne lay wax wa nga seet yàlla suñu borom xam ni àdduna bi bis dina jot ñi yow sa ñaar tànk yi yow say loxo wañ tong sa ko doo ci man dara xam ni bis dina jot nga dee tam lépp lay wax wa nga seet yàlla suñu borom man dëpp rus naa wax ci nit lu ñaaw xaañ jaale moo xam si moom lu ñaaw billahi wallahi ma ko waxoon tey ji jabaram defe kër ga wala moom xam ni dina am ay problème ay mbokkam problème mais man jom naa tax di wax si moom lu ñaaw àdduna du lay wax xam wax adwatuk nit da nga xam lu bari ci sa tank nit ku bax loy def xam jay xamul ma tax lu ñaw xam jay xamul ma ci xamum am afu mi dem jël sama taata sama ta yobbu ko am pala ma fajal ko la ci xamum xam jay lu bax la ci xamum ko ñang kay fajal ay soxlam ak damal la xam jay trang la ci xamum sama digënté yalla xam jay lu ko dafa trang dina dina ba lu ko ci aduna xam jay ba kay kay ma and ak man xam jay mi am deug ne digg dolem ba mu ngi mel mus ñi ngi fi ma ñu xam jay ñu ma di liggey billaahi xanjaay danañu entraînement du kaf du ree du wax xam nga di ree moom nee ba ñàkk wax yàlla katamay wax moo tax nit si nee baax xaar ba mu yor nit fa yorul bu ko gisee man su ma xool ma ànd ak moom sax xarim billaahi wallaahi du kaf du ree di ñàngal booy foofu ku wax ñaar ba ñett mu nga xeex yow loolu yëpp xam na loolu ci moom ku xulool ku jël jëlaat kii loolu du àdduna moom daa war a xam ne mag la xam nga ko defee. uuf booy yi teg la ci yoon bu baax moo njoon jubóo mu jubóo lu ma neex la dama si kontaan trop trop trop waaw man xaaral njaay ak njoon su ma leen jaxasee wala ba lan laa ci gañe man lan laa ci gañe laa xam man man lan laa ci lan laa ci gañe mais léegi yow est-ce que demoo wax njoon benn affaire boo xamante ne bii wax na ko wax na ko Xaadim Njaay wala nga dem wax Xaadim Njaay loo xamante ne wax na ko njoon looloo tax mu ne ma. sama la soo gisee ba ama njoon nga dem laaj ko nag sax mos naa taxaw wax sa ginnaaw dama laaj ko ba ama njoon xam nga moom fii zéro mètre ñoo dende c'est-à-dire nga war mbiri caare ñoom ñëpp ron nga dem laaj leen ndax amu saa am na kenn ku mu sa yow sa la c'est pas vrai mbir ngi toog sa ginnaaw joos mi keneen noonu ku ma am ku ma def lu ma naqare dama la ko man noonu la ma yàlla ma def lu ma naqare dama la koy wax te xanjaa lañ jote wax naa ka te ba ma waxee li mu wax nii woo naa ko téléphone wax ka la ma koy wax dégg na ko baax la ma ko wax du waxi fii woo naa ko téléphone wax ka la ma kay wax mu daw res boobu laa ci pare. mais léegi yow. mais léegi yow lan nga yaakaar ne moo tax Khadim Ndiaye yow sipil la affaire bi yow. waaw xëy na xëy na lu ma àndoon dama ko daa ànd sama ànd ak moom ànduma ak moom da koy da koy métti parce que sama ànd ak moom dafa ma ko amaloon njariñ yàlla nag mooy moo amoon ñoom njariñ mais li nga ànd gis sa bopp Khadim Ndiaye sama ànd ak moom dafa baax si moom Khadim Ndiaye mooy ma jëriñ ma jëriñu si moom moom moo conteneur ay ma man Khadim Ndiaye su ma wax lu ñaaw ne moo tax tax wax si moom lu ñaaw su ma la wax na naa ko bopp téléphone wax ko mu parce que dafa dafa am ak njaboot yaa ngi dégg man xanaa Ndiaye su ma si yàq sama def dama micc xam nga dama micc man ki yàq doom ba di yàq deram di yàq ki muy météo yàq deram lu mu def ñëwee wax ma ko di yàq deru imaam yu yu yu mu dendee fu mu dëkk di yàq deru gaston di yàq deru promoteur yi di yàq deru deru ménager yi kooku xam bàyyi kenn man maa ngi doon tuuti si ñu yàq seen der moo tax ma la dama micc nit xanaa Ndiaye picc waxkat la. man kay wax man dama ñaan yalla yalla sans jikko mais yoon mu jënd ci ko ci si fu mu jël lu baax man dama ñaan yalla yalla ko yalla soppi ci ji mu yonni jikko jikko iblis la yar yalla ko yalla soppi ay sans mu changé mais mom mais mom neena mi ngi am combat de dante yeen mu leen am combat loolu loolu moo leen nekk yàlla ndam yok xam nga yalla ndam yok yalla ko yalla def roi des arènes xam nga yàlla ko yàlla Ndiaye est ce que meuna naa nekk roi des années yàlla ko yàlla roi ah isaay nak da ngay ñaan lu mu nekk xam nga combat am de so dañ ñaari lu ne barke alxuraan karim combat am am na lu ne dañ ñaari man tam dañ sama combat lu ne man di ma xaar jàmm ma defal lu baax parce que ma ko fekkoon na lu baax mais lu ma ko defal lu baax du ma ko defal si àdduna sa kàttan ni xaar lu war lu ma war a def ma fi ne moom ci xëy su ma xëyee lu ma taal man sama àdduna lu ma defalee sama sama sama lu ma lu indi sama kër dugal sama kër liggéey indi sama kër jaamu yàlla loolu laa tal sama àdduna ak am ñëpp jàmm sama àdduna loolu laa tal mais moom carrière bi yëpp Alioune Ndiaye carrière bi yëpp da ngaa xuloo ba nu màggatee na eh, nag bàyyi xuloo bi nga waaye nga dem jaamu yàlla da bëgg xuloo si carrière man man dama ne jàpp ni grand bi damaa xam ne daa am ndax si amoon si nekkam la moom bii la Alioune Ndiaye fekkee wax ci man sax daa ba dee mu bu baax xam na may kat xam nañu ma dëgg laa moom li may tax di ko wax amu ko koy wax li may tax di ko wax amu ko koy wax moom xam na lu baax. ma koy fekk mu toog moo jabar ma wax ko loo xam ne nii jabar naa jabar naa ko isaar nga baas yow du ma jëw nit ko ku ma xool xam ne du ma nit ki wax si nit lu ñaaw mais li ma naqare mooy moom lu mu bëgg laa du def ne si waxee tey suba ma wax fii suba man la ah su bëggee ma jël sama wax ñu bëri boobu xam nga loo gën a dee. non yaakaar naa jaaxal naa du ngeen. dama la maanaam su bëggee boog maanaam na jël sama wax rek sama wax ñu bëri kon moo gën a wax ji xam <laughs> non fekkee damaa mere waaw non xaalis dafa naa ko fekkee damaa mere non mën na bëri léegi man fekkee damaa mere dama gaa bàyyi mere ma léegi su bëggee léegi la léegi sama waas xool su fekkee daa am lu koy bu kaa faj nekk mu moo gën a gaaw li muy wax. waaye léegi yow par exemple Khadim wax nga ko léegi nee nga mag la dafa war a jiital booy léegi bu jëlee sa avance. kon mag su la joxee jël mag ah jox kan mag yow jox na la jël xam nga jox na la jël nga am ab dof xam nga ni ab dof kan du ko yaa am xew yi kan moom ni dafa na ko jël jël nit andi nga ci jël wax na jël nga jël ko teralee danaan dama kaa yeeyoo kan moom xam ko jox respect ndax dama xam Khadim tam nit la moom mom xamna xamna am na ma xam ci moom loo xamante ni <clears throat> wa baaxul quoi man man ma gis na lam lu ñaw man yalla bind ma non ay mom si ni la mom ci wax ci man dara wanaa tit mom tit waaw mais mom ba wax ci man ko woo téléphone wax ko ngay wax mais est-ce que mom yow rek lay waxal wala mom non la mel mbëru caare yëpp ku ne da lay ngawte ngawte deni dom di wax ci moom lu ñaw xëy mo moo kan and kamal kamal sa demee ana ñu bàyyante nan pa mel bàyyante nan non xaayul ke dama ñaan yalla yàlla ko yàlla change rek la ñaan yalla mom legi mom lan moy problème am yow lan moy problème mom nga yaaka ah maa kan sa ñu ñak xaalis motax ñak si di am problème bop maa kan loolu ma ko jàpp laa yaakaar xam ne àdduna nag na muñ xamna aduna da ngay day neex dina xari man de billahi barke la ilaa xanya ma ko yéen a gis ma ko yéen bon yàlla naa jitu xanya xana man dama direct ma sama lay wax ma ko mi deg mom lu may wax mo wax telephone mo wax ñu ma ko wax ma ko wax téléphone ma ko wax deg na ko baax ma wax telephone mais mo soñoon dam jam yalla fexe jubóog ñoom dëkkal ay dëkkandoom àdduna bi doo dee nit ñi la jël yóbbu suulu ji la kon danga nga amoon nit jàmm yaa ngi dégg Xaadim Njaay jaar moom dem la nit man Xaadim Njaay da nga mën la bàyyiwul kon gëmate ne man Xaadim Njaay maanaam moom sës na te dayal na da man kon lii damaa bett man si pilo la ju fu ma jaar ak moom su na taxaa yàq sa der loolu moo ko fu ma jaar ak moom moo tax yow yi <clears throat> am problème moom dafa am problème. problème moom moo moom am problème moom waaw moo tax ma la su fekkee loolu da kaa reetul na jël sama wax ñu billaahi. man de lii maa ngi koy ñaari bokk équipe yi bëgg bëri. dégg man la dama koy wax ne moom sax moom Xaadim Njaay man xam ma wax laa xam jëf. billaahi li ma wax lu dëgg su man la Xaadim Njaay si bëggee jël sama wax ñu bëri ma ak man na gis nga bi ma déggee coow li dama ne gis nga bu gis nga xaadim bu moytuwul Issa bu bis buñ bu bis bu mu dajee moom caare dinañ xeex ñoom ñaar la léegi mu la ma la wax dégg xaadim lu ma ko wax dégg na ko téléphone laa ko woo lu ma ko wax da ko teel kenn sa dund lu ma ko wax dégg na ko téléphone laa ko woo antenne laa ko jël wax ka ma koy wax mais moom bi nga waxee nga ba baalu la parce que nit des fois dina wax benn affaire erreur parce que daanaa dégg naa wax bal la bu xasee ba génn rek jeex na la ma ko wax ma koy wax xaadim ni mu di toog dama koy wax li muy wax ma koy wax li wax <laughs> xam na xam naa yàlla xam na góor lu bëri wax góor góor day jëf àdduna bi xam nga li ñuy xeexee léegi teraanga àdduna ñuy xeexee ak xam nañu li ñuy xeexee lu jar xeexee gën a gëm maa la gën a baax maa gën a bëgg Seydina Muhammad xam ne Rasulullaay yaa ngi dégg maa la gën a gëm Seydina Muhammad Rasulullaay loolu moo li ñuy xeexee yaa ngi dégg yéen ñëpp jàmm man sama ñëpp am jàmm moom nag kon bëggu jàmm na jël sama wax léegi ko ñi laale mu gën a gaaw waaye sa loolu lu ñuy waxaat la billaahi wallaahi kon moom xam naa xool naa xool ne ki bëggu jàmm léegi kon moom am noonu ma jàppee ah kon nee na man maa koy jaxase ak baa ma njoon waaw man xaam njaay ak njoon mu jaxasale man xool naa xoolal man lu ma ci gañe man non man man xaam njaay maa kan wiru moo tax ma la léegi kan moom xool naa xool ne bugg jàmm promoteur yi ñu ngi ñuy déglu léegi promoteur yi ñu ñuy gis comme yéen ñaa yéen bokk écrit kañ te bëgg ngeen a bëree léegi man naa dem ci xaadim laaj ko ndax na jël avance bi billaahi wallaahi su bëggee na jël avance ñu bëri maa moom ma dóor ko ba ba ba moom tudd ci làmb ji <laughs> voilà Issa ñu ngi lay jaajëfal bu baax baax <laughs> léegi nag euh, bëggoon naa xam exactement lan moo nekk sa kanam. waaw li nekk sama kanam mooy kooku yàlla rek la wóor maa ngi liggéey rek di def lépp mais man xaw ma sax suba naa yow yàlla rek moo la wóor man daal ab jullit laa ab jaam yàlla laa maa ngi xëy di góorgóorlu ñëpp di leen def lu nit ñi xëy def rek dinañu jàmm waaw dinañu jàmm di sama waa yi dañu bokk yi liggéey léegi maa maa xaar njëriñ ma doo dañuy dox suñu business di liggéey. ñu ngi loolontal suñu xëyee loolontal maa ngi gërëm tamit sama père Khoule ak père Issa Cheikh Issa ak sama grand frère Amar gën a waa gépp di leen gërëm di gërëm ikri Thiaré yi gërëm Ousmane Diop gërëm Thiaré gépp di ñaan yàlla yàlla na fi jàmm yàgg yéen a ñëpp jàmm gërëm sama copain muuma ñeneen sama famille ñeneen yéen a jàmm yéen it yaay li ni fekk yéen naa ko daw lu bon wala seconde yàlla na ma yàlla ma dal mais dama koy commencé àdduna xam ni ma mag la quoi mag day day ñëw mag day yar puso di ñëw mag mu baax noonu lay def ay moom yoonu jël yoonu iblis la jël yoonu iblis naka teggi xam ne fu mu jëm da koy dugal si musiba ëllëg naka teggi wasalaam